ay fan rek daal di ci korité bi marché central bu Mbour commencé xar marchand ambulant ya fay daani sen doole ñom dañu mer ba futu di daal di joxoñ baaraamu tuuma ki di pap ndjay kenn ci katu mairie bi fi ñun dañu jug jugee dëkk ak dëkk ñew ba fi di ya sun doole kon war na ñoo mëna bay ñu liggéey normal mais fekkon dañu ay marché bi wala ñu ay dañu ay mbéd yépp amul problème mais mën mbéd nga jël ka jaaykat daan ka di dun lan ah ci benn nit bo xam ci mom la jël fay ko muy pam ndjay te munoo wax ni benn munoo wax ni lii la am mbuur lii la am lii la am mbuur wala nga ni lii lay def lii la liggéeyal mbuur sonal nañu torop torop torop torop suñ bagage chaque jour mu ñu ah, chaque mu jël woo police ñu jëw jël ñu jël yóbbu am na di rek na xaaj bay bagage yoo xam seen ñu si seen bagage yi ñoo ngi ñoo ngi police. moom Pape Ndiaye xaarul benn yoon pour tontu ñii di marchand ambulant yi ndax nee na li muy def liggéeyam kese la te ci yoon la ko teg. dégg naa li ñu may waxal yëpp waaye faalewuma leen ndax man fi laa dëkk mbuur gi laa juddoo fii. fi laa juddoo ba toll nii ma toll ñoom ñooñu gan yi jóge kees bërki démb ñu dàq leen fa ñu ñëw fii si digg mbedd mi ne fa la ñuy lal fi fii la ñuy lal ñu ne leen du ngeen fa lal foofu di jaay piis terewuñu leen mbuur dañ leen dañ leen mbedd moom duñ fa jaay piis kenn du fa jal ay piis di ko jaay si digg mi si digg mbedd mi loolu lañ leen tere am na arrêté maire wax na si préfet wax na si ñëpp wax nañ si ñoom ñu ne dañuy jéngu démb maa fa dem am na ñu si jàpp ñu ci jàpp ba yóbbu leen pëlis ndax dañ démb dama dem nangu woon nañ di dem bu ñu bu ma demee bu ma bu ñu ñëwee ñoom ñu dindi waaye bu ma demee bu ñu demee ñu ñëwaat lal place boobu terew ñu leen fenn. ki nga xamante ni moo di monsieur le maire di Fallou Sylla bi ñuy génn la ñu daal di taseeg moom ci bunt bi mu daal ñuy dénk les kàddu déguerpissement bi lii commencement bi kase la te dama koo fa yéenee wëyal.